Euh, fuuta ñu ngi koy jànkoonteel ba nga xamante ni ñoom dañoo teg ab mouvement euh, di wax ni euh, Fouta sonn na faaw ñu daal di koy gersu ak tamit visite bi nga xamante ni njiitu Sénégal mi ngi koy waajal foofu foofulee ca Fouta problème xëyum ndaw yi fii ci Sénégal ak yeneen i ponk yu soxal actualité bi daañu ko waxtaanee ak suñu invité di Mamadou Sarr ñu lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay nuyu di la sant Ndeye Comba di nuyu auditeurs yi yëpp. Mm-hmm. di leen di jaajëfal ci invitation bi. voilà ñu lay remercier ci sa disponibilité réseau de la jeunesse intellectuelle lan nga ñu si mën a wax exactement. oui effectivement euh, Ndekumba euh, réseau de la jeunesse intellectuelle mm -hmm. benn initiative boo xamante ne dañ ko mettre en place mm -hmm. avec euh, le professeur Marito Niane c'est notre parrain mm -hmm. dañ ko jël comme une référence mm-hmm. peut-être actuellement si on a on réellement la situation de notre pays mm-hmm. euh, je pense que jeunesse bi tey jii nii elle a besoin Euh, d'encadrement te mm-hmm. Breus bi mun nañu wax ne jeunesse bi dafa dem ba benn moment dañoo perdre seen repère. Euh, lu tax parce que tey jii nii euh, compétence jeunesse lu ñu waroon jubli ci lu waroon maanaam concentré ci lu waroon maanaam Euh, maanaam soucier ci seen avenir gis nañ à un certain moment démarche boobu noonu principe boobu noonu ak idéologie boobu amatul ci jeunesse bi. Mhm. donc euh, si on a pris l'exemple comme ñu mel ni ay professeurs ñu am lu ñu jàng ci ñoom seen parcours waaw seen parcours loolu moo tax à un certain moment ñu ne il faut que ñu lancer un appel mhm. envers la jeunesse surtout la jeunesse intellectuelle mhm. léegi bu ñu waxee jeunesse intellectuelle nekkul jeunesse boo xamante ne ñoom ñoo def ban yi am na ñoo xamante ne jànguñu mais ay intellectuels lañu ne tu es conscient de l' avenir de notre pays c'est notre continent mm-hmm. nga xamante ne yow yaay avenir suba yow yaa war a changer lépp ak situation bi nu mu demee nii yëpp mm-hmm. je pense que war nga mën a nekk ñëw bokk ci jeunesse intellectuelle ci réseau bi mais mais, mais naka la ñëwee inspiration bi euh, naka la ñëwee naka ngeen porter le choix sur le professeur Mary Teuw Niane. Euh, bi. Mm-hmm. je pense que mun naa wax ne euh, abord ci man la ñëwee. waaw ci naka la ñëwee peut-être euh, j'ai longtemps côtoyé le professeur mhm. euh, depuis que moom waaw moo ma inspiré mhm. d'après ses conférences ses mhm. discours xam nga son parcours ak euh, lu mu def surtout ci enseignement supérieur moo xam ni kii nii c'est un modèle koo xamante ne war nañ ko mën a suivre jeunesse bi bu ko suivre peut-être suba mën nañ dem ba am ay ay marito ñaan yu bëri ci biir Sénégal te bu ñu amee genre marito ñaan yu bëri ci biir Sénégal je pense que mën nañu changer parce que man je pense que je faisais partie parmi les premiers nit ñu ko doon xeex biir université. Mhm. en 2014 6 bu mu ñëwee. yow yow bokkoon nga si ñuy xeex. Mary Teuw chaque jour ngeen ne na tekki ndoom waaw na tekki 2014 surtout <laughs> Bassirou bu mu des di ndaxte mhm. Bassirou Faye c' est un frère. Mhm. frère de liste la. presque mun naa wax bokkoon nañu sax fu ñu nekk. même chambre. Mhm. donc euh, ci moment yooyu noonu ak tension yi nu mu demee woon. ak tamit les réformes d' accord. waaw ak non réforme bi début bi bu mu ñëwee d' accord ñu woon. Mhm. comprendre dañu doon wax ne peut day sacrifier lii nii. Mhm. mais dañoo dem dem dem ba ci kanam. te tey il s' est sacrifié dañoo dem ba ci kanam ñu commencé gis affaire bi di leer. di leer suñu kanam maanaam lu mu doon bu lu mu bëgg teg. si Sénégal ñuy gis muy am muy am sens muy am importance parce que surnombre bi la la doon xeex d' abord. université dafa bougé woon dafa bëri woon te tamit bu mu ñëwee ci université dafa fekk benn système boo xamante ne système bu yàgg bu ñu mm-hmm. naan système lal basang mm-hmm. boo xamee système booy mooy amul c'est pas maanaam ci la indi réforme bu ñu naan système LMD. LMD licence licence master ak doctorat. Mm -hmm. parce que auparavant da ngay gis étudiant bu jàng boo ñëwee ba licence rek. mun nga bu la neexee mun nga fa def dix ans. Mhm. doo cartouché. Mhm. foofu rek ngay des amul mhm. génn wala amul. yem fii ba licence lal basan. waaw lal basan toog. yow yaay xool. lu la arrangé léegi nag ci biir loolu moo xam ne loolu moo tax université bi bougé. il faut mu indi d' abord système LMD bu mu defee loolu mu def sélection master. maanaam jéem a sélectionner les meilleurs. Mmh. pour rendre en qualité maanaam université Sénégal bi mun a bokk ci compétition avec les autres universités du monde. donc loolu noonu il faut que mu méngoo maanaam. quant qualité bi quantité bi étudiants yi méngoo ak maanaam jàng bi nu ñu ko mën a jàngalee. Mhm. pour qualité mun a am ci enseignement bi. Mhm. léegi nag ci la indi réforme boobu nag bu mu indee. début bi dañ doon wax ne dafa doon sacrifier étudiants yi ñuy xeex di wax te tam surtout bourse yi mhm. maanaam Bassirou fay bu mu doon dee moom nee na en ce moment là euh, dafa jàppoon plus de 3000 étudiants yoo xamante ne ñu ngi percevoir ay bourse te nekkatuñu ay étudiants muy def audit la arrêté bourse yi nag mu bloqué ko. Mhm. en attendant muy def audit. Mhm. ci biir bu mu bloqué bourse yi. Mhm. étudiants yi yàkkamti. nu ñu yàkkamtee nag ñu def grève. bu ñu defee grève mu dem grève bi gën a law law. ba Bassirou fay daal di si décédé. léegi moom peut-être dañu naan moom mooy cause bi mais lépp ci cadre defar la nekkoon. da doon defar da doon defar. léegi nag bu mu demee ba ci kanam mu commencé indi tam ay ivees ay leneen ak leneen euh, virtuelle du Sénégal ah mais c'est des vies sacrifiées non non non non hmm. dinaa la ci expliquer tuuti hmm. wala léegi da nga ànd ak maritaw moo tax ngay ngay ngay ngay ngay xalamal <laughs> wala ngay kiyal réforme bi du question ànd ak moom de ko doon xeex ba hmm. parce que dañoo dem ba teg ci suñu bët ba ci gis loo xamante lu concret xam nga nit bu defee ba def loo xamante ne ñun ñëpp gis nañ ko tey nu mu demee dañoo war a apprécier kooku Mm-hmm. encouragé ko. Mm-hmm. parce que boo xoolee en 2013. 2012 2013 la première génération bi la ñu commencé orienté virtuel. Mm-hmm. te boo gisee loolu ñun. maanaam dafa am lu nekkoon ci ginnaaw. université virtuelle bi bu mu ko mettre en place da cee boolewul français yi. ce sont les propres maanaam propres professeurs sénégalais africains. ñoo daje daal di créer université virtuelle. léegi nag français yi si boppam. dana baatoo ci moment boobu France 24 ba ñu naan Sénégal mënul. mënam université bi mënul jàll bii Sénégal parce que egguñu ci niveau boobu. Mhm. enseignement à distance. Mhm. egguñu ci niveau parce que. mais c'est vrai egguñu ci niveau. boobu même ba ba léegi nii. non yi actuellement maanaam jumtukaay yi wax. pour ñu def université virtuelle. am na étudiants yoo xam ne fu ñu fu ñu nekk ci àll bi. déjà amuñ accès aux outils informatiques. et tout mais il était mais ci démarche yooyu noonu yëpp la nekkoon. mu dem mhm. première génération bi boo xoolee mu sacrifier leen. loolu mun naa ko wax dañoo sacrifié mais waa xam nga lu tax du moom mhm. parce que en ce moment Sonatel moo yoroon tout ce qui internet mhm. avant muy jël benn équipe boole ko ak waa Sonatel di def formation boobu noonu pour mun a comprendre loolu yëpp léegi ci biir Sonatel boobu noonu ñoom ñoo def doon doon def di couper réseau bi ba étudiants yi du ñu mën a jot cours yi ak affaire yooyu mais année boobu bu mu jàllee fekk équipe bu mu yoroon maîtriser nañu système bi mm-hmm. ak intérêt bi ci la ñu créé direction chargée de l'informatique au niveau de l'enseignement supérieur léegi c'est à travers cela qu'on a même les campusen xam nga ak les EVE maanaam élection à vote électronique mooy amicale yi université mm-hmm. maanaam disis boobu noonu ci direction boobu moo yor tout ce qui est code internet tout ce qui est maanaam informatique ci enseignement supérieur. Mhm. ñi changé plateforme yi yëpp. Mhm. def loo xamante ne tout est numérique. léegi nag li ngay wax jumtuwaay actuellement lu étudiants yi parce que moom lu ñu gis tey jii nii lu mu yóbboon Sénégal ci enseignement supérieur ci benn niveau bi actuellement ñu ngi sentir ne niveau bi ñu ngi koy wàccewaat. Mhm. ci système bu yàgg bi. parce que université virtuelle yi tey moom dafa nekkoon ci procédure. di inaugurer benn par benn ba commencé inaugurer yu bëri. Mhm. installé leen ba étudiants yi commencé di jàng normalement. Mhm. mais gis nañu bu mu wàccee ba léegi lépp taxaw te tamit ci cadre internet bi lu waroon moom mu demoon ba jënd. ay ce nappel appelle euh, satellite mhm. yooyu noonu xam nga ak supercalculatoire ak affaire yooyu noonu loolu yëpp ci cadre boo xamante ne pour yokk numérique surtout wàllu satellite bi mooy internet bi ñu mun a euh, mun a am maanaam possibilité accès à l' internet que mm-hmm. boo amul internet carrément doo mën a def enseignement Exactement. distance mm-hmm. loolu moo ci démarche yooyu noonu la nekk ci procédure yooyu noonu la nekk parce que boo xoolee bilan bi ak réforme bi ça ça montre de 2012 jusqu'à 2019 mm-hmm. lu mu def ci Sénégal loolu ce sont des choses concrètes mais dañoo seetlu ne depuis bu mu jëmee lii bi mu ngi delluwaat ci ginnaaw. mu ngi delluwaat ci ginnaaw gis ngeen ni daal euh, Mary Teuw Niane professeur c'était le bon profil moo tax ngeen euh, def ko seen parrain réseau de la jeunesse intellectuelle euh, lan mooy objectif bi ak yan activité ngeen di faral di am amal ci kuréel googu. waaw réseau de la jeunesse intellectuelle je pense que bientôt mu ngi am presque un an. Mhm. te buñ ko créer mhm. comme lu mu la expliquer ci inspiration boobu nu mu nemee ci la ñu def on appel. à toute la nga ne ngeen ko créé. c' était en mois de mars bële. bi waaw non non bële passé. am na on a presque. un an d' d' accord mois donc mm-hmm. bu ñu ko defee dañoo lancer appel autour yàlla def ne peut-être ñu bëri ay jeunes. Mm-hmm. étaient prêts pour sax maanaam am comme référence maanaam di suivre le professeur léegi ci biir loolu dañoo dajale ci benn bi boo xamante ne mooy lan kon su maanaam il faut que ñu xam ne ñun ñooy avenir suba. il faut que ñu mun a conscientiser cette jeunesse la il faut que ñu jubli ci wàllu compétence mm. maanaam suñu jàng bu ñu am nañ ci comprendre ñu gëm suñu bopp gën suñu compétence gëm loo xamante ni ñun mun nañu changer lépp à l'avenir mm. donc il faut que ñu am idéologie boobu ak principe boobu parce que am na ñu bëri ay jeunes yuy topp ci ay politiciens wala ay affaires yooyu noonu sans idéologie sans principe yàq seen étude yàq seen jàng affaire yooyu noonu topp ci donc dem ba quelques mois quelques années dañuy regretter lu waral loolu noonu mm. te tamit bu ñu toppee ci rythme boobu noonu suba ñu war a diriger Sénégal seront des gens yoo xamante ne qui ne sont pas compétents affaire yooyu mm-hmm. donc euh, c'est pas aussi euh, euh, maanaam les blancs qui vont venir les jeunes de, euh, de européens qui vont venir pour changer l'Afrique wala yeneen dëkk ñooy ñëw fii ni pour mais c'est nous les jeunes di du Sénégal ñoo mun a changer Sénégal suba. mm que mu am benn réseau boo xamante ne dañuy xaw a may def su forme de maillage dajale tout maanaam tous les jeunes au niveau national vu international intellectuel ñoo xamante ne ñii ay intellectuel lañu maanaam am nañu benn formation am nañu yenn idéologie mun nañu gëm ne lépp mun nañ ko changer ñi daal di dajaloo xool yan activité yan principe la ñuy teg entre ñun pour mun a conscientiser jeunesse bi mun a xam ni avenir suba ñun la ñi mën a léegi yéen bi bi bi président Macky di def euh, conseil présidentiel am bi jëm ci emploi des jeunes est-ce que invité woon nañ leen ci daje boobu. Euh, demoon ngeen non non non demuñu woon. lu tax invité wuñ leen. Oh, waaw lu tax invité wuñu parce que yaa a gën a xam tey actuellement Sénégal lépp lu ci organisé ak le président même boo xamul lii existe na ak leneen ñu ko xam peut-être euh, dañuy dox ci lu ñu du leen di arranger partenaires yi par exemple tey boo amee benn leader ko invité benn jeune. ci wàllu lu mel noonu. Mm. da koy impliqué à ce moom lu mu bëgg nañu teg discours boobu noonu. parce que la la xam ne yéen bu ngeen demee foofu seen discours du arranger le président Sall moo koy wax ci domaine boo xamante ne domaine vérité domaine boo xamante ne nekkuñu fii nekkuñu fële même si nous avons des appartenances politiques mais mais yéen APR ngeen bokkoon yow Mara man ci yow Mara yow APR nga laa bokk mais ci mouvement bi waaw du question kes ay affaire connotation politique non non amul connotation politique parce que nous tous nous sommes des jeunes mm-hmm. comprendre donc bu ñuy woote pour l'avenir de notre pays c'est pas ku benn apéris wala benn Pastef wala benn leneen la ñuy séparer parce que on ne sait jamais suba mm-hmm. ñan ñoo koy jël ñan ñoo koy diriger donc ci biir mouvement bi amul apparence boobu mais ñun ñëpp dañoo conscientiser maanaam xam ni ko professeur mooy suñu suñu suñu repère mm-hmm. mooy suñu référence suñu modèle léegi nag ci moom la ñuy suivre ci ay discours am ci ay ay conférence am ci lu muy dox ay ci lu muy def lépp dañ koy suivre moom dañ koy topp parce que euh, discours am moom dañ koy jàppee lu ñuy tànn am faral di ko wax le discours di professeur équivaut à un cours magistral mm. maanaam lépp lu mu wax mën nga si jëlee ay xam-xam yu bëri donc dans tous les domaines ci biir loolu nag je pense que ñun ñu ngi continuer di def loolu gars yaa ngi apprécier à tout moment di di di gën a adhérer di gën a dugg xam nga léegi nag am na benn programme bu ñu lal. Mhm. ça veut dire le 10 juillet incha allah. Mhm. Euh, dañu compter def première édition conférence boo xamante ne bu mag à l'université te conférence bi professeur ci boppam moo koy animer. Mhm. te tamit am na ay invités yu bëri invités yu marque yoo xamante yu ñu ciblé. ñoo xamante ne fekkee ko avec tous les doyens des facultés le recteur en même temps. ak ñootre amul coloration dinañ invité ñëpp. Mhm. ñëpp invité. professeur ñëw def conférence bi et bi mu ngi porter le Sénégal la jeunesse et les défis du vingt et unième siècle. donc euh, loolu la ñu nekk la ñu waaj ni actuellement. Mhm. pour invité toute la jeunesse. est sax di soutenir euh, Mary Teuw bi laaj euh, mairie bu Saint-Louis. non xam nga man ah? dëkkuma Saint-Louis. waaw. man parce que mu commencé. waaw di laaj mairie bu bu Saint-Louis. loolu question de locale la. waaw. loolu am na ci plein droit parce que mhm. tey jii nii mhm. bu demee ba xam ni moom xam-xam bu mu yor mhm. ak compétence yu mu yor mun na ko mun a apporter waa Saint-Louis pour jàppale leen bu ko neexee mu porter candidat xam nga pour demander mairie bi ndax indi xam-xamam pour développer nit ku nekk dafa am am na fierté ci mhm. fu mu nekk mhm. maanaam dafa am na droit ne dafay apporter dara ci ci sa ville natale effectivement voilà nit ku nekk am na droit léegi naka nga gisee le le problème de de l'emploi des jeunes au Sénégal nga xamante ni euh, problème la te mhm. problème yi dafay jur conséquences yu bëree bëri euh, ba gis nga temps yi euh, njiitu réew Sénégal teg na nouvelle une nouvelle politique pour utal ndaw yi xëy yow Mara ban jàng nga ci am en tant que jeune Euh, diplômé peut-être ah, jot nga am ay lijjaasa lan nga ñu ci ban gis-gis nga si am déjà ci ñàkkum xëyum ndaw yi. Euh, je pense que euh, problème euh, ñàkkum xëy li ndaw yi. Mhm. c'est un boo xamante ne peut-être yàgg nit ñi gouvernement bi bàyyiwu ci woon xel. Mhm. mais c'est un problème boo xamante ne yàgg na c'est pas aujourd'hui parce que bu ñu demee na ay jamono maanaam da ngay gis surtout ci université d'abord. Mm da ngay gis ay étudiant wala nga génn ci biti nga gis benn étudiant boo xamante kuy nga romb ko borom jaaykat café nga laajte ko mu ne la université laa jóge wala am naa master wala am naa leneen mm-hmm. comprendre nga gis kuy jaay ay fugg jaay mu ne la man sama diplôme master fac droit laa nekkoon wala fac science léegi maa ngi nii di jaay boo doon xool loolu noonu rek nga xam ni il y a un problème ambulant yu si mbedd yi yëpp boo xoolee rek jamono boo imaginer woon loolu rek xam ne il y a un notre pays mm-hmm. donc mais le gouvernement bàyyiwu ci woon xel du ma wax président parce que tey jii nii. ah foog nga attaqué président nag da nga naan président bàyyiwu ci woon xel. <laughs> waaw président bàyyiwu ci woon xel. parce que mais looy rayal wax bi. <laughs> mooy njiitu réew mi kay nekkul ay ministre bi boo déggee boo déggee ma wax la loolu neel président bàyyiwul woon xel ci ñàkkum xëyum ndaw yi ba keroog ba émeute am waaw ba émeute yi nag moo soulevé loolu mais boo gisee ma wax loolu mhm. c'est parce que tey jii ni président mm. Mm. mënul xam lu lu bëri non non il est informé le président mais il a une mauvaise information il sait tout ce qui se mais amul information bu baax bi yow Macky moo la gën ay information non des fois dañuy modifier am na lépp tey jii ne tout ce mm. qui est négatif tout ce qui est maanaam loo xamante ne nekkul lu positif. mais li ñu koy nëbb sax xam na ko. Euh, mais enfin. parce que dafa am jaar jaar am na fu mu jaar ba yegg si tey fi mu nekk. waaw boo xoolee tey jour bu muy def. day euh, hésité di attaquer président. non mais neel président li fi nekkoon xamu ko euh, <laughs> nu comment dirais il n'était pas conscient. que euh, ndaw yi non joxu ko peut être joxu woon gëddam même bu ko yëgee carrément mais ñu ko entouré ñoom seen bopp xam nañu problème boobu noonu existe dans notre parce que nous avons une population boo xamante ne jeune yi moo ëpp mm. ci réew mi mm-hmm. population bi léegi mu dem ba benn moment xam nga nit ñi ñu ngi doon xaar même ñu nekk ci biir partie APR ñoo gën a sonn man mun naa wax loolu mm. par rapport ak ñeneen ñi mm. da ngay gis loo xamante ne ay liggéey ñu koy joxe dina manière inégale ah ah ah loolu ñu taxaw foofu ah, parce que buñ parce que fii euh, lu ñu fi yëkkati. ci wàllum financement. ci wàllum fonction publique. da ngay gis yeneen jeunes yi les jeunes diplômés dañuy génn ne. ñu ñu koy jox ñu ngi ci biir. mouvance présidentielle xam naa loolu laay wax. xam naa yow léegi nga ne yaa ngi si biir mouvance présidentielle <laughs> nga ne xëy yeeg financement yi yéen jotoo leen. non c'est une kon kan lañ ko jox. non c'est une réalité. waaw jeunes yi ne ñe waa mouvance bi lañ koy jox. xam nga lan lay demee yéen waa mouvance bi ngeen gisoo leen dara. waaw man tey jii mun naa nekk ci APR. Mm-hmm. comprendre di jàppale le président Macky Sall mais principe yu may doxee ci APL c' principe boo xamante damay topp ci benn Ablaye Daoud Diallo wala benn Cheikh Oumarane mm. comprendre mm. mais dama koy def dina manière boo xamante ne man respecté naa leen de parce que leader yi lan mooy seen problème mm-hmm. tey jii nii dañuy naan loo leen di topp da topp ci lu leen neex mm-hmm. ci lu bëgg même bu mm-hmm. ñu defee loo xamante naga sudul noonu il faut nga apprécier mais am na peut-être liggéey bi bu génne wala leneen dañuy xam ne peut-être Sékou Marane ak ma ak Mara mm-hmm. ñoo bokk benn localité Mara mu ngi koy xeex ci biir local bi mm-hmm. même bu dee APR la nekk bu ñëwee du ko jox Mara wala Mara àndul àndulul ak moom soutenir wu ko ci biir APR donc lu ñuy wax ni waa mouvance présidentielle lañ koy mais encore si biir mouvance bi dafa am ay parti ay parti ay parti ci biir nga gis koo xamante ne ñu jox ko mm. loo xamante ne mérité wu ko mm-hmm. koo xamante ne fii la ñuy gis ñoo xamante ne amuñu benn diplôme amuñu compétence mais politiquement lañ leen di joxee mhm. ci affaire nga gis ñoo xamante dañoo yor seen diplôme maanaam moo tax président ci con discours am bu mu def fii nii fële conseil présidentiel bi moom wax na ko ci mu ne même temps yi nii passé des ministres wax na ci ba naan mhm. question de liggéey yi ak affaire yooyu mhm. buñ ko def dina manière boo xamante ne di manière euh, farfarlooy affaire yooyu nañu posé ko dina manière boo xamante ku ko mérité mu jël ko ci jeunes yi yëpp parce que loolu mooy yoon mais da ngay gis yoo xamante ni comme li ma la wax ci politique bi moo yàq lépp mhm. comprendre mhm. noonu nag la demee mais problème emploi man je pense que nouvelle politique bi président teg yow ban jàng nga ci am bu bees bi nii yi mu teg recrutement yi lancé voilà lu ma gis ni tey jii nga ci am actuellement ak xaalis koppar yi ñu war a jël injecté ko pour l'auto entrepreneuriat aider les jeunes man du ma gis ne mhm. génnee xaalis du jox pour man du solution ah mais gis naa ci président tey jii nii maanaam benn engagement boo xamante ne ak détermination boo xamante ne. Mhm. tey jii nii. Mhm. bëgg na jàppale jeunes yi bëgg na régler situation bi tey mais man damay naan. Mhm. c'est un trop tard. comprendre tey jii nii fu ñu toll nii ak lu ko dese ci mandat. comme ak le pro la manière dont ils sont de faire. surtout génnee xaalis bu bëri. pour joxe ay financement loolu réglé wul problème xëyu jeunes yi. parce que ñaata financement lañu fi joxe mu échoué. parce que booy jox financement na nga ko jox koo xamante ne dafa espèce ba dafa da cee am ay connaissance dafay am ay connaissance maanaam ay conditions yu ko mun a permettre bu ñu ko joxee financement si dina si réussir. Mm-hmm. kon d' accord ñu yëkkati yenn milliards yenn milliards yi teg ko fi pour financer ay jeunes yoo xam ne xamuñ sax fu ñu jëm fu ñu jëm dem fee génne benn projet ñëw teg ñu jox leen xaalis ñi dem te amuñu si euh, compétence amuñu ci xam-xam ay affaires yooyu noonu. kon lan ngay proposer man lu ma proposer nañu créer des sociétés des des industries mm-hmm. comprendre mm-hmm. par exemple biir Fouta xam nañu yan industrie je peux donner exemple par, par phosphate bu nekk bi Ndendoori. Mhm. phosphate boo xamante ne euh, ñu ngi koy exploiter d'une manière bàyyi nañ ko tax exploiter wu nañ ko. état bi moo war a jëlaat initiative ci phosphate boobu noonu mu teg fa genre benn industrie boo xamante ne day transformé waat mhm. phosphate bi parce que euh, euh, ni ñu koy waxee fil yi ñuy ñawee defee opération ci lañ koy jëlee am na ay carreaux yoo xam ne ci lañ koy defaree mën nañ ko defaree affaire yu bëri def ko entreprise maanaam jël fa ay ay jeunes. Mhm. yu nekk ci diwaan boobu noonu di leen di liggéeyloo. Mhm. comprendre mhm. créer ay usines créer ay entreprises loolu mooy régler problème emploi jël leen. comme ay employés am ay contrat mhm. ñu leen di liggéey tant que on n'a pas développé l'entreprise yi en même temps industrie affaire yooyu ci biir mhm. réew mi mhm. maanaam ñi bàyyi ay industrie privée yi affaire yooyu noonu peut-être loolu tamit baax na financé ah bu ñu ubbiwul multiservice restaurant ngay ubbi effectivement <laughs> surtout ñu accompagner projet rek moo ñu accompagner industrie privée yi maanaam les secteurs privés yi état bi da leen war a accompagner accompagner ak ñoo xamante ñoo xamante ne dañoo yor seen petit entreprise yu ndaw am ñu ñu jël ay quelques sénégalais ñu yokk leen doole. Mhm. ndax ñu mën a développer seen entreprise ndax ñu mën a jël ay jeunes yu bëri. Mhm. je pense que il faut que état bi jublu ci côté boobu noonu. Mhm. pour ñu mën a régler le problème d' mais bu dee génnee ay xaalis da ngay génnee xaalis di xaalis bi doo xam fan la jaar. parce que bii ni ñu wax bu keroog bu ma déggee ñu wax génne na financé na ñu bëri. mais amul benn rendement mm-hmm. parce que beaucoup de financement beaucoup de projets vont échouer parce que ñi ngi ko jox ñu ay compétence ci domaine boobu DER yëpp tamit naada baax non DER moom ba léegi man gisuma importance bu mu def ci wàllu maanaam mm, pourtant am na ñu jox de waaw am na ñu mu jox mais lu mu yàq moo bëri mm-hmm. ñu mu yàq moo bëri mm-hmm. bu dee cent un milliard certes jox na deux cent yi millions yi wala trois cent millions yi wala cinq cent yi réussir nañu mais yu si des yëpp perte na. Mhm. te loolu mënoon na créer benn entreprise mënoon créer benn affaire boo xamante ne dinañ ci jënd ay jeunes ñu liggéey. Mhm. maanaam loolu moo bëri te mhm. tamit. Euh, président dafa am ay équipe yoo xamante ne. amuñu maanaam engagement pour jàppale ko pour jàppale. président ci wàllu réew mi parce que dañee da bëri am na ñoo xamante ne euh, amuñu compétence ci équipe bi mu yor ci hmm. gouvernement bi. ñu si gën a bëri amuñ compétence maanaam yow xanaa ministre euh, de l'emploi ngay waxal. Dame eh. Diop wala koy waxal. <laughs> non non bu may maanaam Dame Diop amul compétence. non <laughs> du ministre de l'emploi laay ngay wax ñu xam. moom lañ dénk man bu may wax. waa dama koy def ñi ko wër amuñ compétence. <laughs> du may wax dama koy wax ci cadre général. Dame Diop ngay wax. parce que boo xoolee président hmm. la gouvernement Macky Sall. Hmm. premier gouvernement bu mu tegoon fii nii. je pense que c'était le meilleur. gouvernement bu gënoon baax. parce que ay liggéeykat la ci tegoon. Mm. ba ci 2019 moo tax mu def ay résultats yu bëri ci réew mi dans tous les domaines ku nekk domaine bi nga nekk mais gis nañu après 2019 c'est un gouvernement boo xamante am nay ministres yu ñu fi namee ba léegi gis ñu leen. bu ñu leen nomee 2019 ba léegi mm-hmm. après les élections mm-hmm. ba léegi kenn gisu leen mosoo gis ñi génn ci télé ñu ne def nañu lii wala def nañu ñu ngi toog rek mais ñu ngi fayeeku ñu ngi fayeeku ñu ngi seen lii mu ngi def mais ñu ngi toog mm-hmm. kenn mosu leen gis man am nay ministre yu ma xamul ministre de la pêche wala ay ñoom Omar Sarr ñu nommé woon fii nii anañu kenn mosu leen gis ci wàllu lu ñuy liggéey ak ñeneen ak ñeneen mais gis nga loolu noonu certes ci wàllu politique moo tax mu jël leen wala affaire yooyu noonu mais du seen domaine compétence comprendre ministère de l'enseignement supérieur problème yi yëpp moom moo ko indi. yow da ñu indiwaat Mary Teuw Niane. bëgguma lool de pourtant l' actuel maire. Mm-hmm. l' actuel ministre. ñoo bokk benn dëkk c' est mm-hmm. mais bu ñuy wax dégg bu ñuy wax dégg carrément bu mu ñëwee ba léegi gisuñu fi ay innovation gisuñu fi loo xamante ne mettre na ko en place ci lu ñu jotoon liggéey. Mm-hmm. war ko continuer mu jeex. parce que nañu waxante dégg maanaam am na lu ñu jotoon liggéey. lu xamante ne buñ ko continuer woon dinañ dépasser fii ni ci enseignement supérieur ay affaires yu concret maanaam cité du ah, savoir bi nekk Diamniadio mm-hmm. si boobu noonu c'était tellement important étudiants yi créé woon fii ni ay robot ci wàllu corona bi mm-hmm. ñan ñoo leen di former maanaam ci ban département lañ jógee loolu noonu yëpp ak ñu créé affaire pulmonaire yooyu noonu pour mën a la permettre ngay respirer affaire yooyu ci wàllu corona bi moment corona bi mm-hmm. ñu nekk fale IPT bu professeur moo ko indi woon ci domaine science. Mhm. mettre ko en place ci biir enseignement supérieur les ICEP. et tout la am na mhm. beneen lii de transformation bu nekk conki esil mhm. mu indi maanaam innovation bi dañ ko soxla ci enseignement supérieur bi ñi former ay jeunes. yo yoo xamante ne mën nañu indi ay importance équipe gouvernementale bi vraiment. apporté wuñ euh, pratiquement. rien du tout am na ñoo xamante jox na leen loo xamante ne c'est par à leur domaine amuñu compétence boobu. d' accord waaw. léegi fan ngeen toll ak euh, seen dossier ak Eiffage Sénégal euh, yéen ñi nga xamante ni amoon ngeen problème ñu dàqoon leen ngeen nekk ci presse bi di kaas euh, seen dossier boobu fu mu toll exactement. waaw je pense que dossier boobu mun naa wax ni dañ ci teg tànk parce que dossier bi demoon na ba tribinal teg tànk maanaam expliquer ñu xam teg tànk maanaam dossier bi. ñun dama ne en dernier moment bu ñuy jóge fii parce que mosoon nañ ci waxtaan. Mhm. Euh, Azur woowoon nañu. ñi dem Ageroute toog ak sa secrétaire ak le nouveau ku ñu nommé woon maanaam le directeur des autoroutes. Mm-hmm. bu ñu toogee waxtaan ñu expliquer leen lépp indil leen ay preuves yu concret yow bu ñu ñëwee fi indil nañu ay preuves yu leer bu ñu ko waxee ñoom si seen bopp affaire bi da leen. si si ni ñu leen dàqee seen. bërëb bi mm-hmm. ak fu ñu jaar ak ak ak directeur bi ak lu ñu ko jox convocation yi ñu ko jox ñëwul ak ñun preuve yi ñu yor yoo xamante ne ñii dañoo def lu leen neex te dañ doon sàcc. Mm-hmm. loolu yëpp ñu indil leen ñoom bañ si teg seen bët ñu ne mosuñu ko xam. ci lañ ñu wax automatiquement ñoom ñoo ñu woo ñu ne indil leen ñu seen liste ñoo xamante ne yéen a bokk ci mouvement bi parce que ñun dañoo jël suñu volontaire ñu bàyyi lépp ñu ne dañuy porter combat bi. Mhm. pour am gain de cause pour loolu noonu yëpp jeex. ci biir loolu moo moo indi woon automatiquement ñu nommé le directeur des autoroutes parce que Seck Tidiane Thiam directeur DRH euh, euh, Ageroute. Mhm. moo nekkoon euh, par provisoirement directeur des autoroutes. ñu jox ko. Mhm. moom moo créé woon. maanaam eh, lii fictif boobu société fictive boobu Intelliman teg fa benn xaritam sax ci xaalis emploi employé di ko lekk. Mhm. noonu lañ ko doon defee léegi nag bu ñu demee ba révélé ba ba génnee maanaam. Mhm. révélation bi ci la ñu changé automatiquement. Mhm. léegi ci biir lool bu ñu waxee ñu indil leen liste ak arrière yi ak indemnité yi yëpp. ku nekk ñaata lañ ko war a delloo. ak possibilité lu ñu war a def pour que liste boobu noonu ñoom ñëpp ñu dellu seen liggéey. Euh, dinañu lii dinañu woowaat ñu ngi ci. Mhm. ñu ngi ci ci dossier mais en attendant bu ñu ngeen joxee ñun porte nañu plainte Intélimane. Mhm. ba benn jour moom si boppam Ousseynou Nango Seck mu dem gendarmerie fale Colobane daal di indil convocation Fallou Fallou dafa toog seen kër rek ba ko indil convocation bu mu demee Fallou bu mu demee yóbbu ay preuve yëpp bu mu demee expliqué dañ ko libéré parce que dañoo jaar ci porte yëpp pour mm. bëgg ñu daaneel mhm. mais xam nañu amul ay amuñu ay preuve parce que lu ñuy wax yëpp dañ ko teg fu leer léegi nag ci biir loolu ñu dem déposé tribunal première fois moom woowoon nañu pour entendre ñu. Mm-hmm. avant ñu mais dossiers yi ba léegi ñu ngi ko teg foofu noonu. Mm-hmm. mais Ageroute ak le ministre. ministre de des infrastructures maître yi moo fa nekkoon. Mm-hmm. demoon nañu ba sori ci dossier yi pour jéem a la taw def la tout waxtaan ak chinois yi la ñu waxoon. waxtaan ak chinois yi pour mun a delloo xaalis bi en même temps mun a suñu place. yàlla def quelque moment changement am. ñu dindi ministre boobu Mansour Sow Mansour kii Mansour. Sall xaw ma nu ñu koy waxee sax Mansour Faye daal di ñëw. Mhm. léegi Mansour Faye bu mu ñëwee bu mu ñëw fekk na fu ay dossiers yi woo ñu woo Fall moo fa demoon ak ñeneen ñaar trois fois bu ñu demee trois trois mois d' avril bii nii la ñu waxoon. ils vont nous rembourser et nous allons euh, euh, retourner mais depuis lors. tamit di ngeen jëlaat seen poste dinañ leen. Euh, rembourser seen xaalis suñu xaalis mais ba léegi gis dossier bi bougé wul dara. est-ce que fas ngeen attaqué waat yëngal dossier bi comme ni ngeen doon defee ay mm. sorties presse ainsi de suite. ñu ngi doon wax loolu. Mm-hmm. mais a un certain moment man sama bopp damaa comprendre wul parce que on avait l'engagement la détermination te tamit ak ku ñu doon soutenir ci combat bi. Eh, mu dem ba benn waaw ñu dem ba benn moment tamit am ñu si relâché am ñoo xamante ne ñu si relâché te comprendre wu ñu nan la demee non non non du guy guy musul relâché quoi si ñun entre ñun mhm. parce que da ngay dem woote wala affaire yooyu ay deux personnes trois wala quatre ñoo si mujjee di nekk mhm. waaw ñu yaakaar ne nag ñoom ñoo ñu déstabiliser parce que amoon nañu yaakaar mhm. du egg ba fii waaw amoon nañ ci yaakaar carrément parce que dem nañu ba wooñu ba gëmloo ñi carrément dinañ régler situation bi mm-hmm. léegi nag à tout moment on s'entend cest bu ñuy waxtaan ni ngi naan est-ce que duñ ko reprendre mais lu ñuy gën a soxla tey jii nii. Mm-hmm. lu ñu gënoon bëgg lu ñu gënoon soxla maanaam ñi rétablir conditions yu fa nekk. Mm-hmm. mais yàlla def na situation bi foofu noonu yëpp. changé léegi ñu fay liggéey. rétablir nañ seen ñu ngi am seen seen droit ak mm-hmm. seen lépp rétablir nañ ko quoi. voilà euh, beneen kuréel bu am solo euh, fan di def buzz di euh, Fouta Tampi nga nekk membre fondateur bu mouvement Fouta Tampi man dégguma Haalpulaar. Tampi mooy lan. Fouta tampi mm-hmm. mooy mm-hmm. sonn na. Mm-hmm. Fouta sonn na. Fouta sonn na Fouta lottu na. waaw léegi lu ko waral. Fouta sonn na bi dama bëggoon leeral foofu. tuuti. parce que des fois gars yi dañuy foog ne sonn na bi tampi bi. maanaam cadre crise la. crise alimentaire la wala Fouta amuñu lu ñu lekk wala amuñu lu ñu naan wala dañoo sonn cadre boobu. kon ban tampi la oh, ban tampi maanaam dañoo maar. dañoo maar ci manipulation politique yi. maanaam si vous voyez bien. Mhm. que Fouta a tout fait pour le président Macky Sall. Euh, même ci deuxième mandat bi maanaam amul xale amul mag amul ndaw fuuta ba mu de te bu ñu waxee Fouta de Dagana la jusqu'à Demankane bu ñu waxee de côté Bakel te tamit laal na ba côté ba côté Ferlo bi côté Tamba. Mhm. zone bi yëpp Fouta la. Mhm. maanaam c'est une partie intégrale du Sénégal. maanaam ci biir loolu noonu dañoo gis ne depuis que le président Macky Sall bu mu ñëwee 2012 ba léegi. amul lenn loo xamante ne lu concret loo xamante ne dina njëriñ waa population Fouba pour ëllëg mhm. mettre nañ ko foofu en place mhm. dans tous les domaines ba léegi. 2012 ba léegi nga xam ni euh, le président Sall Fouta lay damoo. maanaam foofu waaw lay damoo am nañu ay ministre mhm. am nañu ay DG am nañu ay PCA. mais ñoom ñu fa nekk amuñu benn njëriñ. ñoom ñëpp. maanaam dañoo gëstuwul Fouta def fa seen intérêt moo leen fa nekkal. ak seen intérêt politique. mais intérêt Fuuta ak nu ñuy manipuler population bi heure mm. bu ñu soxla population bi mm-hmm. ñu ñëw wàcc seeni oto ak seeni xaalis di leen di yëngal seeni parents suñuy lépp di leen di manipuler loo ne président fii yaa ko moom fii yow mm. yaay borom alors que ñun ñu ngi sonn ne foofu tiitre foncier président Macky Sall. Fouta waaw loolu la wax <laughs> président te noonu la waroon demee. Mhm. mais en ah, fait ah loolu loolu la président gëm. waaw que Fouta titre foncier boo gisee mu wax loolu. foofu du fa jonganteel kenn du fa xeex foofu la cosaanoo waaw. foofu mooy dëkkam. foofu la jógee. Mm, net da ko bando net waaw mais <laughs> loolu moom moo fi amatul. Mm. parce que tey jii nii 2012. Mm. ça reste que trois ans. ci mandaayam mais boo xoolee si Sénégal lépp président chaque. mois wala chaque année wala chaque lii di nga dégg inauguration ci benn diwaan mm-hmm. inauguration ci lii mais mosoo mm-hmm. dégg inauguration biir Fuuta mm-hmm. mosoo ko dégg du domaine hôpital tey jii nii Fuuta moo gën a sonn ci wàll domaine luy problème mu Fuuta si côté infrastructure sax boo gisee Fuuta Tampi bi xam naa ne dinañ ci ñëw après pour mu expliquer la fan la jógee ak nu mu demee mais ci Fuuta Tampi jeunesse boobu noonu ñi indi Fuuta Tampi ñoo xeexoon ba ñu terminer route RN2 nationale bu jógee Ndioum dem ba Ourossogui mhm. route boobu na même ci campagne yi maanaam ci rang rang la mhm. taw nawet bi ñëwee am na ay oto yu fa accidenté am na ay nit yu fa dee mhm. tali bi ba Ourossogui amul benn tali bu baax boobu infrastructure il a ñi xeex ñi def fi benn marche bu mag comprendre gars yi yuuxu quelques moments ci moo ci régime euh, Omar Youm ñi daal di ko continuer beneen bi bu ñu ñëwee ci domaine santé maanaam Fuuta ak nu mu tol avec euh, plus de quatre cent et quelques mille habitants. Mm-hmm. comprendre maanaam ñaari hôpital waxuma la hôpital de. ay mhm. district sanitaire lañu. Mhm. hôpital bu Ndioum bu ñu naan hôpital Ndioum. ak mhm. hôpital Ourossogui. hôpital yooyu noonu ça date depuis moment ab sengoor xaw ma. ça fait longtemps. ñaari hôpital yooyu la ñu am lu ñu naan ay hôpital te hôpital yooyu noonu district sanitaire laa ko mën a jàppee. parce que amul ay médecins yu qualifiés amul ay ay matériels yoo xamante ne. Euh, ku dina mën a maanaam faj ay nit ñaata nit ñoo fa ñëw. Mhm. comprendre ñi évacuer leen balaa ñuy ex Saint-Louis sax. ñi décédé ci yoon bi mhm. ndax manque de matériel. Mhm. yu ñu koy fajee ak manque de médecins qualifiés. comprendre hôpital yooyu boo ko xoolee da ngay xam ne lii de hôpital. man loolu moo tax ak Fouta nu mu toll. amoon na je me rappelle temps yële passé am nañu suñu pon benn benn proviseur ancien surveillant tudd Moussé Ba ak keneen ku tudd Kébé fii fu Euh, feebar te dee dee bu gaaw ci cadre manque de d' ak matériel ci hôpital bi maanaam problème biir la amoon bu muy dem jóge seen kër di dem. Mm-hmm. moo yóbbu boppam. moo yóbbu boppam bu mu egsee médecin bi nekk dafa war a def opération. Mm-hmm. xoolal mu raté opération bi noonu la décédé. Mm-hmm. ak keneen maanaam ña fa nekk sax amuñ yenn compétence amuñ yenn compétence dañ fay envoyé médecin yoo xam ne maanaam respecté wuñu foofu xam nga lu tax. parce que ñoom leader yooyu yu fa nekk. soucié wuñu ci loolu de parce que duñu faju foofu seen doom yi duñu fa faju politique rek moo leen fay indi. Mhm. maanaam Fouta daal lottu na ci côté bu ne. côté bu ne santé bi moo gën a garaaw. président gëstuwu leen benn yoon. amul lu fa président Macky loo xam ni def nga ne ah, ngeen ne njiitu réew mi moo fi def. lii pour delloo njukkal Fouta. désenclavement di de l'Ila Morphil bii rek. Mhm. maanaam def fa infrastructure bu mun a relier Ila Morphil bi ak. nga xam ne ñu mun a de de de mu mun a désenclavé woo quoi. Mm-hmm. loolu moom def na ko foog ay tali ci biir mm-hmm. mais loo xamante ne ay problème phare yoo xam ne population bi soxla nag te population bi ci moom lañ ko yaakaar actuellement. Mm-hmm. comprendre loolu moo fa manqué. surtout hôpital bi bu mu la wax. fan yi ni passé ñaata hôpital le président inauguré. bu ah, Touba Kaffrine Fane moom waaw te Fouta moo gën a soxla loolu. Fouta moo gën a soxla ay hôpital actuellement nii hôpital de haut niveau laa la wax. yéen da bu mel ni CTO bii sax la ñu soxla xam nga lu tax. Mhm. képp ko ku feebar. ak n'importe quelle maladie ak n'importe quelle urgence bi nga am. boo fa ñëwee di nga fekk loolu lay faj. Mhm. ak matériel bu lay faj. Mhm. jarul ñu lay naan dañ lay évacuer. évacuer à wala saint te yoonu Saint-Louis Dakar dafa sori. waxuma la Dakar fee nii bu doon sax ay hélico mën nañ ko wax. mais ay oto lay doon. moo tax bëri na ay nit ñu ñàkkum bi nag laal na waa Fuuta foofu foofu la gën a foofu la gën a laal mhm. foofu la gën a metti ñàkkum xëy bi parce que tey jii ni lan lan moo ñu ci biir loolu ci biir euh, ni ñu koy waxee sax euh, hôpital bi mhm. Fuuta tamit soxla na ci wàllu formation maanaam ay institut de formation biir Fuuta surtout université soxla nañ ko carrément xam nga lu tax ñu soxla université. Hmm. soxla ngeen université. université bi bëgg ngeen hôpitaux yu tali yu baax ay centre de formation. Hmm, hmm. euh, professionnel soxla nañ ko biir Fouta. biir Fouta comme ni mu amee ci yeneen nañ mu am foofu. au lieu que forcément ñuy ñëw à yi maanaam bari na fi ay étudiants yu jógee fii nii. conditions yi mooy ba ñu bàyyi seen jàng. daal di dellu biir Fouta parce que fu ñu nekk d'abord ak condition lu ñuy dundee ak lu ñuy nekkee tey jii ni loolu bu amoon biir Fuuta ngay xëy di wàcc di ñibbi seen kër wala di dox à 3 kilomètres 5 kilomètres pour ñibbi. Mm-hmm. je pense loolu bu amoon biir zone Fuuta waa Fuuta mun nañu développer Fuuta. soxla na université. soxla na université xam ban lan moo tax. Mm-hmm. parce que ñun suñu secteur d' activité activité yu ñu gën a mun a di def. Mm-hmm. biir Fuuta mooy élevage agriculture. ak pêche. ak pêche surtout élevage te tey jii nii je pense que bu ñu defoon benn université biir Fouta. Mm-hmm. mën nañ fa créer ay filières. Mm-hmm. de formation en élevage en agriculture. Mm-hmm. et créer former des jeunes. ki ki ki ñu doon ay ingénieurs si domaine yooyu. si domaine yooyu yooyu noonu mën nañu dellu biir. Fouta créer ay entreprise biir Fouta pour mun a développer Fouta bañ a dem fenn. loolu tamit bokk na ci loo xamante ni dina xeex ci wàllum emploi. parce que balaa ngay maanaam di naan ay emploi affaire yooyu di noonu il faut nga former jeunes yooyu noonu. Mm-hmm. ci domaine boobu noonu nga xamante ne mooy seen secteur d' bu ñu amee formation bi dañuy soxla uniquement financement. pour mettre en place leur entreprise mm-hmm. créer entreprise yu mag ci domaine agriculture ci domaine élevage Fuuta rek mun na mun na jox ci wàllum dund mm-hmm. Sénégal man billaahi loolu mun na ko def pour fekkee jàppale nañ ñu carrément créer ay jeunes ingénieurs ci wàllu agriculture jox leen les moyens possibles ñu ne nañu bay fuuta ci wàllu ceeb tomate ak lépp lan moo taxoon mu amoon usine fa fële ci Dagana mhm. c'est parce que il y avait la la maanaam production maanaam en agriculture ci wàllu tomate biir fuuta production tomate boobu dafa dee biir fuuta actuellement léegi fuuta produire tu tomate comme ni mu demee woon mhm. mais fuuta moo doon moo doon indil tomate usine tomate bu nekkoon Dagana mhm. ba Dagana di mun a produire ay tomate affaire yooyu lingeer yooyu noonu mais amatul usine bi dafa daanu. léegi président fa yi euh, dina dina dem Fuuta. Mm -hmm. yéen da ngeen di dem tertu ji ko takk morso yu xonq wala da ngeen di dem euh, tertu ji ko defar seeni pancarte ne ko président ay hôpitaux la ñu bëgg président ay université lañu bëgg président ay centre de formation la ñu bëgg ay jumtukaay. Mm nan ngeen fas yéenee euh, préparer visite bu président Macky Sall fële ca Fuuta. Wow. nga xam dina ko amal si fan. loolu ñu ngi ci. bu baax. xam nga ñun dañoo dañoo am benn stratégie boo xam ba xam leader yi. Mm-hmm. bu ñu xamee li nga nar a préparer loo xamante ne arrangé wu leen. dinañ def le tout pour contrer la mm-hmm. jour bi mm-hmm. xam nga temps yi dégg nañ ay nervi yow gisoon nga vidéo <laughs> boobu noonu nervi yi doon doon tëb ci benn xale dëgg la nekkoon au meeting Podor xam nga loolu du yoon te lu ñuy wax ñoom seen arrangement la sax parce que ay réalité la loo xam ne ñun soxla nag bu dee ñoom bu ñu jaakaarloo ak président ñamewuñ ko wax loolu mais nañ ñu bàyyi ñun ñu wax te dinañ def tous les moyens sont sont sont bons actuellement. Mhm. pour président mun a dégg suñu message bi. Mhm. fopp fu ñu ko mun a jaaree pour président mun ko tey xam naa ne dégg na ko. Mhm. jarul ma koy wax je pense que après dinaa la ko wax. Euh, mais mais président dégg na suñu message. waaw actuellement fu may na suñu message. président dégg na seen message. xam na li ngeen bëgg. xam na Fouta Tampi. xam na ay yeneen collectif yu mel ne ay Podor Debout ak leneen. xam na tamit lu ñuy ñaxtu. dégg na mais yéen du ngeen dem teertu ko. tertu ko. Mm. waxuma la du ñu dem xam nga sànq maa ngi doon wax Fouta Tampi peut-être dinaa si ñëw. waaw ñan ñoo ko constitué. waaw ak lan ñoo fa nekk. président dinañ ko tert yi mais teertu boo xamante ne du teertu pour jàppale leader yooyu. Mm-hmm. xam nga tey jii nii ku ñëw rek day foog ne dafa ñëw pour jàppale leader bi nag président gis ne leader yi am nañu mbooloo wala Fouta yëpp mu ngi ci moom. Mm-hmm. mais dinañ teertu teertu boo xamante ne pour won président. comprendre mm-hmm. Fouta am na lu ñu soxla comme li nga wax sànq. maanaam won ko suñu doléance ci teertu boobu lañ koy teertoo. Mm, wan ko suñuy lépp suñuy pancarte moyen def yëpp. wan parce que. mais mais est-ce que gëm ngeen ko fay am déjà président ñetti at a ko na am. pour mën na réaliser. président bu jëlee décision boobu. Mhm. balaa deux mille vingt trois sax. Mm. loolu mun na taxaw. doon ngeen def mati manifestation yéen waa Fouta Tampi. ñu ñu sabote ko qu'est-ce qui s'est exactement ku ko sabote. manifestation boobu je pense que c'était le 10 euh, euh, ban mois la woon sax euh, mars je pense. waaw mhm. la ñu waroon def place de l'Obélisque ñu dem ba préparer lépp def annonce def information def. lépp communication pour pour ba préfet ci boppam may ñu autorisation. Mhm. président may ñu autorisation mais dafa am ay leaders ñu ko dégg. Mhm. ñu mel ni ay Farba Ngom ay Ablaye Daouda Diallo. comprendre man ci lu ma gis parce que préfet dafa bàyyi ba dernier moment. Mhm. ba jour bi mu daal di envoyé benn benn genre document. Mhm. te par WhatsApp la ko envoyé. Mhm. mu envoyé koo xamante ne moom lañ ko jiitaloon tudd Ndiaye moo nekk euh, président collective des jeunes du Fouta. Euh, bu ma ko envoyé parce que moo doon dox démarche yooyu mu bind ci mu ne il faut ñu reporter suñu marché bi ndaxte dafa may expert ñu yor wàllu beer bi. dañuy jaar côté boobu noonu bëgguñu benn lii ay affaire yooyu noonu fekk ñun commencé nañu ba pare préparé nañu woo nañu sensibiliser nañu woo nañu ñëpp mm-hmm. ñu war a dem léegi nag ñu ne lii mënuñu ko arrêté parce que bu ñu ko arrêté ñoo xamante ne dañu leen di woo sensibiliser indi leen dañu naan ñii dañu leen corrompre mm-hmm. daa am ku ñu jaar seen suuf wala affaire moo tax mm-hmm. ñii gëmuñu seen bopp ngeen dem def manifestation il faut ñu dem léegi nag waxuñu kenn ñu continuer rek dem defar suñuy banderole ak suñuy lépp y de monde jour boobu noonu parce que nit ñi dañoo ñëwee ci côté yëpp. côté bu mais ñun ñoo teel a ñëw bu ñu njëkkee ñëw nag juste ñu fekk fu armée armée laa la wax. waxuma hmm. la benn oto ñaari oto. armée moo fa taxaw. armée laa la wax laa fa fekk. <laughs> tegaluñ leen police tegaluñ leen gendarme. ay maanaam gémi xaw ma ay lan. Hmm, lañ fa teg hmm. comprendre wër place de bi yëpp ak côté yooyu ñun dañoo egsi rek ñu encercler ñu. jàpp ñu ñun ñëpp yéegal ñu si oto. ñu yóbbu ñu police kat quatrième. comprendre lu toll ni treize personnes ñu jàpp leen yóbbu leen police waaw benn jigéen la ci amoon muy Fatimata Ndiaye bu ñu mm-hmm. demee foofu noonu de quinze heures mm-hmm. jusqu'à vingt deux heures xaw ma vingt une heures mm-hmm. lañ ñu ci la ñu nekk ci salle bi après commandant bi commissaire bi ni ñëw teg du ñu expliquer xam nga lu ko préfet wax même moom sax préfet moo ko envoyé moo ko envoyé lii même chose mu ne demal nit ñi bu ñu def ay affaire te nous on a compris on a compris. yéen lan moo tax ngeen ne Farba Ngom moo saboté seen marche bi. parce que jot nañu information Farba Ngom moo saboté seen marche ko saboté bu Fouta Tampi ban ban preuve ngeen si am. ak lu tax nga wax ko moom ak Abdoulaye Daouda ñoom la ñoo ko saboté ñoom ñoo ko saboté man mun naa ko wax. lu tax nga wax loolu. lu tax moo wax parce que dañ see am ay preuve parce que da am ñu ñu intervenir. Mhm. pour jéem ñu xoolal arrêté lu ñuy def. Mhm. jéem ñu nax jéem ñu corrompre. parce que ñoom dañu gëm te waa Fouta Tampi dañ ñuy yàqal. ñoom xam nga dafa may leader ñu nekk biir Fouta pour ñoom ñoo mhm. moom Fouta. Mhm. parce que ay xaritu président la te président du a wàccee Fouta nag. Mhm. kenn moomu ko. ñu dëkk Fouta ñoo moom Fouta. parce que ñoom amuñu benn njëriñ Fouta. xam nga Farba euh, des fois xam nga Fouta comme exemple dama naan la Matam ak Podor man laa nekk. Euh, mais Fouta Tampi dafa am ay ñu nekk Matam am ñu nekk Podor parce que. slogan la. boo xamante dafa regroupé. collectif yuy contesté si mhm. démarche politique bi ci biir collectif yi nag mënu ma la wax ne ñëpp APR la ñu nekk comprendre di nga gis ñuy xeex contre li fekk beneen Pastef la nekk wala beneen parti mhm. ñoo naan dama ci adoré mais l'essentiel xeex bi na doon xeex pour l'intérêt di fuuta mhm. ñi daal di contesté parce que bari na ay collectif biir Matam am na président Yeeju Fouta am na Fouta Insoumis mhm. am na Dandemayo xaw ma émergent euh, mhm. am na xaw ma Matam diinoo mhm. am na tamit ay les collectifs des jeunes du Fouta loolu yëpp biir Matam la nekk comme bu nekkee far ba bu defee am na lu mu def maatam mais am la def maanaam les aañam c'est le maire des aañam Agnam dafa am ñetti Agnam bu fa nekk léegi nag ci biir aañam boobu noonu ci diwaan bi ak côté boobu moom defar na léegi dafa am yeneen leader yu nekk ci yeneen diwaan yi yeneen local local yi ñooñu ñoo amul njëriñ si seeni local mhm. ku mel ni ay Matam ay Orkadiéré ay yeneen ay Sinthiou Bamambé ay loolu mhm. loolu Matam la mhm. ñun tamit biir Podor dafa am ay collectif yu fi nekk ay Podor debout am Fouta Tampi biir Podor am ay Podor utile ak yeneen ak yeneen ak xam nga euh, yeneen mouvement yu ndaw léegi nag dañoo constaté pour ñu am force bi pour gars yi dégguñu il faut que ñu créer slogan boo xamante ne dañuy inviter. Mhm. tous les collectifs. Mhm. autour de ce slogan là ci slogan boobu noonu. Mhm. pour ñu mun a ànd ñun ñëpp xeex yuuxu maanaam dénoncer. ci problème yu ñu soxla mais Farba du leen ci bàyyi de. waaw daf ñu si bàyyi parce que. il feront le tout na ni président Sall moom titre foncier la. lool la ñuy gëmloo président pour leur propre intérêt. ñoom ñëpp <laughs> parce que bu ñu jaakaarloo ak président ñu ko wax. dañuy lox xam naa ne duñ ko wax réalité yi. Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi la bokk waaw wala déet juste quelques minutes euh, temps bi jeex na une minute. waaw euh, Fatoumata Ndiaye. Euh, Fouta Tampi la bokk waaw wala déet. parce que dem mi ngi ñu ngi koy menacé de mort fu dëkk ñu fekk ko fa ay nervi. waaw Fatoumata Fatoumata Ndiaye c'était une invitée dans le Fouta Tampi maanaam. comme lu ma la wax fa temps léegi les Fouta Tampi slogan la. Mhm. ñun ñoo ko créé avec le de des jeunes du Fouta ko créé ñu war a def marche bi. te mhm. la ñu ne dañuy invité tous les collectifs. Mhm. collectif bu nekk ñu woo sa coordinateur. sa lépp nga ñëw ñu toog ñun ñëpp ñu xool nan la ñuy defee marche bi. ci biir loolu moom Fatimata Ndiaye ci président yeejo Fouta la bokk dañoo am seen coordinatrice Europe la nekk. bu ñu interpellé kooku kooku moo ko yabal après que mu ñëw jour marche bi lañ ko gis. la ñëw buñ ñu jàpp moom ak ñun la ñuy jàppandoo biir prison bi. Mm-hmm. léegi nag bu ñu toogee ci biir à l'intérieur ñu ngi doon reño ci biir ci biir salle bi di xool lan mooy faay ak bu ñu génnee lu ñu war a def peut bu mu génnee moom elle est partie directement dans les médias. Mm -hmm. surtout émission bu mu def ak Pape Alé. ba mu fa demee commencé di wax au nom du Fouta Tampi. Mm, alors que du c'est pas le cas moom président Yeejo Fouta la bokk ci mouvement boobu boobu mouvement mouvement bu ñu la ci biir Fouta Tampi. Mhm. léegi nag mais maanaam sorteem yi muy def moom la engagé. mais engagé wul engagé parce que fuut waat Fouta Tampi. la certes bu demee. Euh, objectif maanaam dana lu Fouta Tampi di xeex lay wax mais ñun. Mhm. yabaluñ ko peut-être bu mhm. muy dem nous ne sommes pas courant. waxuñu dañuy toog toog nii rek gis ko. comme tout le monde nu ñu ko gisee dans les médias et tout. Mm. mu dem foofu wax dem foofu ba benn jour gis nañu sax benn benn télé bu bind Fatima Ndiaye coordinatrice Fouta Tampi alors que Fouta Tampi du mouvement sax. Mm. slogan la te ñoo ko mettre en place. moom nee dañ koy menacé de mort fu mu dëkk. Oh. yéen yéen est ce que yow yow Mara le mm-hmm. fondateur est ce que ma nañ la. de mort ba nga duggee si <laughs> slogan ba léegi. Fouta Tampi non man mm. menacé wuñ ma de mort. Mm-hmm. parce que. Euh, ñun lu ñu koy defee. Mhm. Euh, ak nu ñu koy doxalee dañ koy defee dina manière boo xamante ne même bu dee sa am na. sa pas la manière maanaam comme ni ma ko waxee. Mhm. parce que am na ñuy wax ni am na ñuy xooxatal moom la am mhm. na ñuy wax ne moom ci lii la bokk. te man yaakaaruma loolu. yaakaaruma ndax opposante la par affaire yooyu noonu. certes dañoo dem ba fippu ay affaires yooyu noonu ak opportunité yu ñu waroon am yëpp amuñu ko te ñun leader yu fa nekk la ñu mere. yéen daal da ngeen bëgg euh, ñu geex su Fuuta si côté surtout yi parce que mm. combien de ministre combien de ministre ñun dañuy toog rek man damay nekk université nekk samay nawle ay affaires yi ñu ne ma gouvernement bi ay pël ñoo si nekk pël mm. kes ñoo fa nekk mm. Macky Sall waa Fuuta rek la jël te boo xoolee à l'intérieur loolu am na Fuuta gisoo fa dara luñ luñ defar euh, euh, maanaam am na ay ministre gouvernement bi ministre yi bëri na ay pël bari na ay fuutanke mais pourquoi Fuuta gën a nekk en arrière c'est parce que ñooñu ñoo xamante ni Macky Sall leen fa teg pour ñu nekkal ko foofu biir Fuuta ñoom ñoo amul njëriñ Fuuta xam nga lan moo leen fa intérêt seen politique. seen politique une fois keroog temps yi lay passé bu Macky corona bi jeexee ku nekk di dem meeting dañoo profité xam ñu foog dañoo foog ne waa Fuuta dañoo bëgg lekk dañoo sonn comme ñeneen ñi parce que ñoom ñoo ñu yàpp. Mm-hmm. dañuy maanaam descente bu jotee bu ñu fàttee waa Fuuta ñu booroon wàcce waat Fuuta par exemple président mu ngi waaj ñu daal di jënd seen i tonnes yi ceeb ak diwlin ak seen i xam nga ñi jiital seen i seen i nit ay ñoom yattay affaire yooyu noonu ñi daal di wàcc si bi di def dëkk commune par commune ñu ne dañ leen di distribuer acca pour ñoom population bi dañoo xiif mm-hmm. ñun xiifuñu maruñu sonnuñu quoi mais lu ñu nekk condition nañ ñu defar ñu defaral ay moyens de ñu mën a nekk ci condition yu normal dans tous les domaines domaine éducation domaine santé domaine lépp voilà temps bi jeex na Mara ma bàyyi la nga tàggoog auditeurs yi <laughs> temps bi jeex na tàkk. effectivement voilà maa lay jaajëfal di la remercier nag. Mhm. parce que si invitation bi parce que lii moo ñuy mun a may opportunité. Mhm. pour ñuy mun a lancer suñu message à tout moment. Mhm. Euh, ndaxte message bu ñu parte message boo xamante ne ça nous va au cœur. parce que ku nekk bu defee lii sa diwaan ak sa gox. bu nga def pression ñu fa nekk à ce que ñu liggéey je pense que Sénégal yëpp mooy développé parce que c'est pas aujourd'hui ça fait longtemps que ñuy dox ci démarche yi nii Euh, nu doon loo xamante ne peut-être ñu bëri ci liñ leen lañ ñu xamee même si nous sommes dans le mouvance présidentielle Euh, ça ne veut pas dire que ñun ñu sommes contre parce que des fois gars yi dañuy wax ne man je suis un Guy Marius Sagna de Podor wala mm, mm. ñun ay société civile lañu ay affaire loolu noonu <laughs> alors que c'est contraire c'est diamétralement nga bokkul mm. waaw affaire bi daal maa ngi lay jëf-jëfal di jëf-jëf euh, jaajëfal ñëpp mm-hmm. euh, di la remercier vraiment ci invitation bi te tamit di joxe rendez fu le 13 xaw ma le 12 arrivé président la ci Fouta. ja jërëjëf euh, di woo waa Fouta. ñu koy remercier bu baax euh, Mamadou <laughs> Sarr fondateur du mouvement Fouta Tampi coordonnateur bu réseau euh, de la jeunesse intellectuelle di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci technique bi ak yéen suñu auditeurs yi ñuy bàyyi xel saa su ne mën ngeen dégluwaat émission bi ci www.rewmi.com wala ci suñu chaîne YouTube bu Rewmi officiel jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah.